décision ba nga xam ne rek président bu tribunal d'instance bu Ziguinchor di Sabassy Faye daal na ko woon jël daal di ordonné ngir ñu daal di réintégré waat kookee di Ousmane Sonko ci liste électoral yi ginnaaw bañ ko daal di rajee loolee nag mu mel ni nag disponible ndax nag buñ sukkandiku ci document yooyee nag journal bi di bés bi di xam la nekk leader bu parti bi di Pastef moom may ba tey mënagul retiré li nga xamante ne si nag moo di fiche de parrainage foofee direction générale des élections ginnaaw bi juge bi sax nag daal di defee boobule annonce rek ci alxames bi kenn ci ay avocat Ousmane Sonko di si Ciré Clédor li moom mooy dafa daal di woon déclaré rek ne ci àjjuma ji ka nga xamante ne si nag moo di mandataire bu Ousmane Sonko dana daal di dem retiré li nga xamante ne si moo di fiche de parrainage. mu mel ni nag leader bu parti Pastef boobee sax nag dana daal di xaar ndax nag. cour d'appel bu Ziguinchor dina daal di prononcé wu ci réquisition bu juge Sabassy Faye moomee nga xam ne nag alxames bi ñu génn ci audience bañ doon amal lu jege rek fukki waxtu rek ak ñett ngir ñu daal di réinscrire kii koy di Ousmane Sonko ci liste électorale yi loolee dinañ ko amal rek suba ci àllarba ji mu mel ni nag mbir yooyu dafa daal di a jël rek beneen tournure. ca geneen wet ga nga xam ne nag ñoo di agent judiciaire bu état nag ñoom ñoo ce ci verdict ba nga xamante ne si juge su fay daal na koy jël ba tax rek ñoom ñu daal di def recours rek ci li nga xamante ne si ngir rek ñu daal di récuser ki nga xamante ne si nag moo di juge Sabassy Faye li waral loolu sax nag mooy agent judiciaire yu état boobee nag dañoo daal di jàpp rek ni ñi nga ki nga xamante ne si nag moo di juge Faye frère la ci kenn ka nga xam dafa daal di bokk nekk rek membre ca Pastef rek nekk adjoint bu Sonko ca mairie bu Ziguinchor ba xamante ne si nag moo di représentant de l' boobe sax nag dafa daal di woon tenté rek d'obtenir la tête du magistrat ca audience boobee wante loole nag juge Faye nag daf ko daal di refusé suba ci àllarba ji nag état dina daal di joué rek deuxième cartam jëm ca cour d' appel bu Ziguinchor ndax dañuy daal di bàyyi dossier Sonko boobee ci taabulu juge Sabassy Faye wala sax dañ koy koy daal di retiré loolee nag dinañ ci am lu ñu leer bu suba ci àllarba ji.